jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi jëmm ji mooy le marabout milliardaire Serigne Abdoulaye fay am na ñu ne milliard daf koy lekk ci ñeenti fan dinaa ko laaj ndax wax jooju tamit nan la ko jàngatee ak nan la ko déggee am na ñu ne am na politicien bu koy euh, financé parce que mbokk yi jamono ji coole tamit euh, tàmbaliwaat na diggante Adji ak Sonko ba am na sax groupe de presse buñ ci plainte ak benn sëriñ buñ ci plainte euh, te loolu lépp tamit darañ ko ci laaj accident yi ak yi xew ci dëkk bi Adji Sarr ak Sonko bu ñu demee taxaw ca baar ñu jugé leen kan mooy am dëgg li bokk na ci li gën a yokk tax ñu fekk si le marabout milliardaire mbokk yi am na kilifa goo xamante ni ab paala dañu ko naroon a génnee bi mu ñëwee si Ablaye Faye si Ablaye fayal ko ay weer yu weer yu bëree bëree bëree bëri jox li nga xamante ni moom mooy enveloppe bu duuf dañuy seetaan enveloppe boobu laata si Ablaye fay di euh, nuyoo ak askan wi kon ñu xool vidéo boobu ak si Ablaye li mu ko jox ci xaalis. Mm-hmm. ndax nag dañu woon yow nag ndax nga sàkk si wax ndimbal nag comme nag ma daan dimbalee rek. ndeysaan voilà ndeysaan kon incha allah dina la jàppale kon am lii moom. Mm-hmm. mu ngi nii benn àll mu ngi nii beneen àll mu ngi nii waaw incha allah fexe nga fay si amin amin amin fay si fay si fekkee dañ laa bëggoon génne ñeent ñaata weer nga leen amal ñeent ñeenti weer waaw am poroon fexe nga fay leen foofu léegi incha allah dinaa la wutal kër man suñu Babacar Si mais suñu baal ko si mais moo tax ekk ñëw du mën a gàntal ndax damaa gën suñu baal ko si. voilà voilà kon incha allah fay si li ma te fexe dinaa fexe dina am benn kilifa boo ne dinaa dem si moom incha allah dinaa fexee ni wutal la kër dinaa fexe ni wutal la kër jox la kër waaw te encore dina la fexe chaque fin de mois di fayal la après di fexe ni wutal la kër dina la ko jox lii daal moo moo moo taxoon wax dëgg yàlla Euh, comme noonu ñun moom social rek la ñuy dox. Ah, di bëgg nañ képp ku mm-hmm. ah, ah, gannaaw ba nga nuyoo ak askan wi tey ñu bëri nee nañ Cheikh Abdoulaye ay milliards la yor te saa su nekkee yow da ngay dëggal wax jooju parce que gis nañ enveloppe bi nga yëkkati euh, jox ko góor gi. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu di leen ziar dina leen baalo ak di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu seen Muntaxa Mbàkke fi yàlla na ko yàlla yàggal ko te wéral ko mi nga xam ne moo fi nekkal murid yi di nuyu di nuyu suñu kilifa ñun it muy suñu mbay suñu Mansuur mi nga xam ne mooy sunu moo mooy sunu euh, njiit mooy sunu njiit tijaan yi yëpp mm. ba si laaye ñaasi laaye ba si suñu mbokk chrétiens yi. di rafetlu déplacement bi nga xam ne da ngaa déplacé nga ñëw seet si ma. Euh, sëñ Ablaye euh, jëf ju rafet jëf ju riis jëf ju toll nii tey duñ ne guléet duñ ne c'est la première fois saa su nekk sëñ Ablaye mi ngi ci jàkka yi sëñ Ablaye mi ngi ci hôpitaux yi sëñ Ablaye mi ngi ci euh, social yi ak màggal yi gàmm yi. bala ma laa laaj ci secret bi nga xamante ne mooy secret alal parce que ñu ñi tamit nangu nañu sëñ Ablaye dafa yor secret ay milliards. Euh, góor gi fi nga ko fekk ak fi nga ko yóbbu. mais xam nga dëgg gis nga alal boo ko yoree il faut mu feeñ. Mhm. alal ku ko yor moom. Mhm. loo ndëbbu ndëbbu ndëbbu dina feeñ parce sa jëf. Mhm. sut koo xam ne da nga def jëf ci jëf ci rafet. faa mu feeñ. parce man maa munta dak man maa munta jàkkaaloo doom aadama baa xam ne. Euh, ñi koy ñi koy ñi koy ñi koy ñi koy xat-xatal wala ñi koy toroxal wala di ko génne wala di ko te te ma yor lu ko lu ko mën a te du ko fayee. Mm-hmm. ma war a ma yëkk sama alal boobu fekk mu yor na ay mois mois yu bari comme nu mu ko waxee si vidéo bi. Mm-hmm. yor ay membres te dafa opéré. moo tax ma yëkkati lool jox ko ko pour fayal ko ko. Mm-hmm. mais lool moo moo moo war si man. Mm-hmm. il faut ma def lool mm-hmm. loolu moo tax ma def loolu parce que ñëpp xam na ni fi ma jaar ak fu mu jugee. kon bu yàlla dénkee nga am teraanga nga am wërsëg nga am alal. faa nga fàttaliku li génn si gannaaw. nga doog mën a def lu baax mais nit. ku am alal am teraanga ba fàttee luy si gannaaw nga xam ne am na am na loo dund. kon képp ku ñëw si yow di ko dimbali di ko jàppale. di nga ko dimbali. Uh-huh. mais si Ablaye bëggoon naa tamit nga wax ñu nan ngay def ba xaalis bi ñëw ay jinne nga yor wala tey dafa am ay xuddaam yoo yor. ñi ngay jëf leen tamit di leen ñaanal parce que ñaata nit tamit nga jël ñaanal leen bañ nekk milliardaire nit ñooñu tamit bëgg naa xam fan nga jaar ak ñoom ba tey wërsëg ak alal ak teraanga euh, yomb leen. mais xam nga tey bu la yàlla dénkee alal sa bopp la ñëkk feeñ ba pare mu doog a feeñ si ñeneen. parce que munoo wax da ngay ñaanal ay nit nekk ay milliardaire mm-hmm. ñu nekk borom alal nekk borom teraanga tey yow munoo yor dara. c'est impossible man moom bu fekkoon man maa doon ñaalu may dem si benn maara mu may ñaalu mu ni dama lay def milliardaire. est-ce que moom nekk na milliardaire ba pare. Mm-hmm. mais comme lu ko waxee. parce que alal bi dama koy ñaan ay doom aadama yoo xam ne nii gis. ñu nekk ay minti milliardaires ñu am seen alal di ma ko jox parce que wax naa la ni heure bu ma ñëwee li may waxaat rek. nii 500 millions la ñii 400 millions nii 350 millions ñii au milliard nii 2 milliards 500 millions yooyu yëpp bu daj loo ngay sa ñaan lu toll ay jun jun personne. mais il faut mu feeñ sa yow. loolu alal boobu. fu mu jugee mooy ñi nga xam ne damay ñaan ñi gis. ni ma koy fay. loolu la mais. secret bi mu ngi fi. Mhm. képp koo xam ne bëgg nga nekk minti milliardaire. Mhm. bis boo ma contacter nga ni teg ko fuy leer. Mhm. incha allah rab ba bëgg nekk milliardaire di ko doon. mais da ko teg fu leer. man aw ma jot. kañ nga ma gëj a gis deux mois trois mois. gisoo ma parce que damay nekk si liggéey bi. damay nekk si wirdi damay tukki damay def lu nekk mais nekk ma rek chaque jour ñu téemal ma écran pour di si wax. chaque jour damay liggéey sama liggéey bu yéen boo amee looy ma laaj fekke feex naa ngeen laaj ma ko ma tonte leen ko. mais lii may def chaque wax naa leen yii lii gars yi di wane rek ci télé rek ci social moom moo ngeen gis mais munoo chaque jour nag ni lay filmer nga def social mais am yu may def ci social foofu moo ëpp foofu li muy wane. mais milliard ci ñaata fan nga koy lekk parce que tamit ñi nga xam ne instant yii ñoo ñoo ñi nga ñoo ñëw mais milliard du taxaw ci la loxo. Mm-hmm. waaw parce que na xam ni chaque fenn mois di nga lekk di di nga li nga li ngay li ngay financé dina ëpp ëpp 500 millions. ba tax da koy ëpp parce que tey doom aadama yi nga xam ne dañoo am soxla yi. te ñëpp xam na ni ab Ablaye fay si social lay yëngu. mais ma tey ba mu la gën a yi may fay. da ngay jaaxle moo tax am yenn saay nit damay wax soxla. mais dama lay seetlu. boo ma waxee soxla moo damay wax déglu ma xaar ma dinaa la jox. mais ndeysaan am na koo xam ne da doon ngénte bëgg dem. jeudi bi paase. mais nee na problème xar la am problème bii. mais yëkkat naa benn somme envoyé ko ko mais bu mu nekkee hôpital yëpp. mu ngi may woo mu ngi may woo mais dafa nekk nit ku dal nit ku teey ba mu yëkkat sama alal ni ko ma parce que dafa am ñoo xam ne dañ lay ñaan ndimbal ba pare. mais dañ lay ne ay message yu gàtt. yoo xam ne du amul respect. mooy ah mooy eh fekke loolu fekke fekke mun a nekk rek yàlla baax na bàyyi bàyyi lépp si loxo yàlla mais bi nga xam ne bi nga xam ne yàlla baax na loo may contacter di ma woote di ma wax ay soxla. Mhm. mais ba ma waxee soxla wala déglu ma parce que day fekk mais yenn saa sax da ngay seetlu nit ki sax nga mu wax la sa soxla. Mhm. da ngay toog dal mais doo ko gaaw a jox mais da ngay seet. jikkoom après lan lay doxee. nga yéex ban saa nit la. nga yéexal ko ko tuuti bu demee ba ba ba continuer ak yar. ak dal ak yar ak dal parce que kooku damaa gis mu continuer dal. ak yar ak dal rek ma xam ne non non kii nit ku baax la. si laa yëkkatee sama ndimbal yónnee ko ko. mais fekk ko xam ne day yónnee message waxuma woon lii de message yu gàtt yooyu waxuma woon lii. eh foo du fekk mënoon nekk mënu nekk rek yàlla baax na mm. mais mel ni koy forcer mais kooku duma la jox. mais nit ñu bëri loolu la ñu def. Mm. moo tax man képp ku def ndànk. Mm. ak tey ak dal. li ma yor yéene ko moom mais da ngay na respect ak dal parce que doo ñaan ba pare nga may wax ay yàlla baax naag mais yàlla yàlla ba mu baaxee day nekk tey. yàlla ba mu nekk baax na du nekku tey mais bi nga demee ba xam ne instant lépp da ko teg sa si loxo yàlla. mais waru woon woon waru woon nga njëkkee di yónnee sama message di ma wax ay luy. ki nga xam ne day day soxla ni ndimbal na def naa ko bu defee nag dinaa ko yónnee mais ay message yu bari yoo xam ne message yu bari sa bañ ma ko mais message yoo xam ne day ñàkk teggi ne euh, amul respect yooyu moom ku ko def moom di nga yéexee jot ndimbal mais ku ànd sa dal ak teey ah incha allah rabbi moom bu ma xam ne yow la mais il faut ni def naag mas social si laay dëkk moom laa bëgg di chaque da ngay ànd dal ak teey mhm. euh, sëñ Ablaye Faye boo xoolee année bi année bu doy waar la ni mu tàmbalee am na oto yu këpp woon muy bis ba Euh, tey la ca ñàkk seen bakkan dañ na waxoon ne foofee la accident yi di yem mais pas 4 jours oto këppwaat ba ay personnes yu bëree bëri gaañuwaat ca euh, am mi tamit ni mu dooree tamit doy na waar mais xam nga xam nga xam nga nit ñi dañoo war a xam ni réew mi su boppam laaj sangat. Mm-hmm. parce que eh, sangat bi mooy xam nga mais gouvernement bi su boppam moo war a gën a sangat sarax yooyu. Mm-hmm. parce que dafa am am ay jinne yoo xam ne deret lañuy dundee. Mm-hmm. man bu ñu demee ba joxatu leen sarax joxatu leen dindi ba ci géej gi rek géej gi mu nii nii nii manqué na manqué na manqué na manqué na lii manqué na sarax. géej gi rek mën naa yëngu wala mën na am leneen parce que manqué na sarax. moo tax il foofu ñi gaa yi si boppam il faut ni ni jox leen seen sarax. tali bi encore kii nga xam ne kilifa gi lu ma koy digal mooy. na wut ay gàtt yu bari. ràngale ko si tali yi. ray ko ñu togg ko foofu def ko ceeb. jàng fa euh, jàng wàcc fa ay kaamil looy mooy saafara ji. mais loolu foofu amul. sa xasida yi ma da gën a yokk rek. kon d'accord ci euh, bis yi nga xamante ni ñu ngi dindi seen porte bagage. mais mais mais mais mais loolu loolu loolu loolu xanaa da ngay gis benn personne boo xam ne day dawal sax. benn personne boo xam ne day dawal sax mbëkk garab wala saaraan benn nit lay doon kon soog bi lii parce que soog yi ni muy bëree xam nga ñëpp xam ne ne mbiru oto dafa amaale li ñuy wax affaire saytaan affaire jinne mais moo mais il mais mais am na ak gàllaaj yoo xam ne wala ay sarax yoo xam ne wala ay yooyu boo ko defee yàlla la li si musal mais il faut ni def ko parce que accident yu bari li ko waral lëg ay jinne ay jinne ak rawaan ay yooyu da koy def mais parce que nit ñu mënuñ gëm ne loolu lu am la il faut nit ñi gëm na loolu am na. parce fekk la benn personne rek da ngay gis benn personne boo xam ne day dawal mbëkk ñaata oto ñooy saaraan di daanu di li soog bi parce que jinne yi deret la ñuy dundee boo ñu joxatu deret dañ ah, fii si askan bi lay ñëwee. parce que boo xoolee kenn waxul la sacrifice bu bon la. da ngay wut ay sa sarax ay xar ak nag ak yooyu nga génn ko sarax si kaw tali. loolu mooy mooy mooy mooy toj affaire yi. mu deñ mais fii def nu ko day gën a yokk rek. Serigne Abdoulaye Faye euh, di kilifa ñu fekk ko fi ci këram gi nga xamante ni moom mooy almadi di seq ak moom waxtaan wu yaatu euh, dinaa laaj ci ba tey mbirum Ousmane euh, Sonko ak Adji Sarr coow loo xamante ni def na ay at mais ba tey coow li jeexagul mais jàpp nañ ne février bi kenn dana ci gañe moromam mais tey fan nga jàpp ne fa la dëgg ëppee. mais xam nga jamono toll nii Sonko kenn mun kenn wérantu lu bari na mbooloo. mais ga gars yi di wax dafa bëri galaaj galaaj yi xaw naa des tuuti. il faut ah. ñu comprendre ko waa. Sonko amul galaaj. non wax mu amul galaaj mais dafa galaaj yi moo des. galaajam parce que galaaj yi mu amoon bu njëkk ba gars yi ñoo ko catu ba galaaj yi presque toj toj na. moo tax il faut moom si ba parce que boo xoolee gis nga est-ce xam nga ni ndox robinet yi gars di naan. Mm-hmm. robinet ga bu yëboo ku nekk bu yëboon. na seet ndox kerenam di ko naan. ndox garab yi ndox ndox yi nga xam ne gars yi dañ koy naan. Ah. forage bi ñii nekk si gouvernement bi. Mm-hmm. def nañ si gallaaj ñii nekk si ñii nekk si euh, ñeneen comme ay parti yooyu. def na si galaaj parce que pour nit ñi naan ko pour seen xel nekk si ñoom. de maa la ko wax. parce que boo xoolee forage yi. Mm-hmm. gallaaj kese la. te ñoom ñoo ko si def pour waa Sénégal yi seen xel li dëpp ak ñoom. est-ce fu may waxee. forage yi man maa ko tëdd ba guddi gis loolu forage yi yëpp état galaaj kese la. képp ku si naan far force di nga topp kooku. ku yab bënteen ca naan ah, parce que. li la Alboury defoon. non li ma la wax moo si nekk. forage yi am na ay ay affaires yu si nekk ay affaires féticheurs ay affaires sacrifices yu bon yoo xam ne ñu ngi si te lii di nga dem ba leer nañ. moo tax ba ku yeboon da nga wut sa ndox kereen wala boo wutee boo mënta woot neex kereen nga wut comme ni nga ko waxee ndox teen parce que forage yi moom xale bu si naan waaye ñëpp ñu si naan di nga di nga topp kooku ko di nga dem ba as kooku moo la gënal sa ndey moo la gënal sa baay. ba teyituñ ko ba da nga gis goo xam ne da ngay jël mel ni nit wala Sonko wala président nga nga nga xoolal nga mu jëlal nga nga fàtt sa bakkan. Mhm. loolu du tayeef. ay mbir la ay mbir la waaw. Euh, sëñ bi euh, tey bëgg naa tamit ñu dugg ci lenn loo xamante ni euh, soxal na askan wi da ngay gis tey ku bëri alal yor ay million ba ay milliards ba commerçant boo xamante ni day doxle jékki-jékki ba caa commerce di baissé wu di wàcce loolu tamit lan moo koy faral di def. liggéey liggéey li hmm. liggéey yi dañ koy def. Hmm. est-ce que xam nga ne la wóor ni chaque jour bu la yàlla dénkee nga am alal nga am teraanga. Hmm. am na ñu lay xeex. il faut nga comprendre ko. Sénégal moom Afrique moom dañ lay liggéey liggéey liggéey ba nga takkale ko sa sago dañ lay liggéey liggéey ba nga loo xam ne mënoo ko bëgg ko woon def mm-hmm. il faut nga ko da ngay gis borom alal boo xam ne dafa yoonoon ay milliards milliards dem ba yorutu dara mm-hmm. ñaata ministre ñoo xam ne da nekk si gouvernement bi mm-hmm. ac ministre yi xooleen ac ministre ak léegi ac yëpp jaay nañ seen kër yi yorutuñ dara am na ñoo xam ne dañ liggéey liggéey la liggéey ba dootoo yor dara. il faut loolu mu am ko parce que nit ki moom du ñàkk noon noonu yi bëri na fi. parce que da ngay sa oto sax nga fekk ñëw ni toj ko. nga gaari sa oto fekk ñu xoos ko nga am place bu baax ni fexe liggéey la pour nga jóge foofu fii Sénégal moom liggéey moom fii la nekk parce que ku nekk am na noon boo xam ne dalay teg bët chaque jour mu singil la bëgg la yàqal fu la waxee lu baax moom lu bon rek lay wax si yow boo gisee tey xam nga man euh, dégg daaj. Mm-hmm. man mun maa bon. Mm-hmm. mun maa soxor parce que fu mu jugee la. Mm-hmm. parce que wax naa man avant ma la yàlla di ma jox teraanga di ma jox wërsëg. xam-xam bii nekk si man avant ma koy génnee. dama jaar fu nekk dawal naa puus-puus. Oh. il faut ni ni leer ko. ah bon dawal naa puus-puus sama tubéy bi nga xam ne moom laa soloon bi bi comme ça tubéy mel ni tubéy kaki. damaa dawal puus puus di ko dawal ba ndox ndox ndox ndox affaire bi ndox taw yi jour boobu dafa tombé muy taw kàmb yooyu puus bu daan foofu puus bu daanu man ma daan waale sama tànk yépp tooy xep. Oh, ndeysaan. est avant loolu Louga laa nekkoon. Mm-hmm. di liggéey ak si poulaay bu mag. Mm-hmm. mais bu am na ñoo xam ne nekk bu la yàlla naree jox mission. Mm-hmm. dafa am fu mu koy jaar. nekk sama mission moo jotoon de. ku nekk am na mission si àdduna. Mm. ku fi ñëw rek am na mission. léegi may liggéey ko may fay dix mille francs. la ma doon fay par mu au mois. dix mille francs par dix mille francs. maay fobeere kër gi ba mu set. maay roose fleur yi. maay raxas bool yi. maay defal lépp. allah is comprend fu may waxee. Mm-hmm. may defar lépp après ni yokkal ma si beneen liggéey boo xam ne benn poulaay boo xam ne diggante perce que mun naa koo wax diggante euh, diggante boo mel ni ku boo jógee Padoa. Mm-hmm. di ñëw Almadi. di ñi déedéet diggante boo di ñi ñëw ba ba ba ba ba ba côté euh, Damel. Damel ok noonu lay sonante da ngay yenu ay da ngay yenu ay ganaar. ba mu fees dell dell dell si ay paan yoo xam ne da nga koy dox ba foofu yóbbu ko foofu parce que par ay commande waaw da boo wàccee boo wàccee boo wàccee paan bi sa loos bi doo ko mën a siggi ndax metti sa sidit yi day metti ma dem ba fa tooy fa liggéey bi métt ba mu tooy fa mais comme li ma waxee borom kër gi si boppam mu nekkoon koo xam ne ku bari alal la. Modou Modou bu bari alal. am teraanga am alal. Mm-hmm. ubbi fa poulailler boo xam ne ay millions millions la si finance di mm-hmm. di ma fay dix mill par weer may liggéey si kër gi boole ko ak poulailler bi di sukki ay ganaar di leen xont di leen dox ndox. di leen xont di leen jox ndox di leen di di teel a jug. Eh, liggéey bu métti bi nga fi tudd yëpp. nan la ko nit mën a liggéeyee patron weer ba weeru de mu koy fay sag weer dix mille li tamit euh, euh, lu doy war la. waa xam nga tey jamono nii mun naa wax sax mun naa ko jënd ba jënd ay mbokkam jamono nii ndax man yoruma woon alal yoruma woon dara te yàlla def na yor naa ay milliards milliards parce que wax dëgg yàlla xam nga àdduna moom nit yi nit dafa war a di sóoraale lu ñëwagul. Cheikh Ablaye Cheikh Ablaye man de bëgguma woon nga jooy bëgguma ko woon de. parce que xam nga Médoune foofu faaw nga dagg émission mais xam nga nit ki fooy amee sa teraanga rek. da ngay ñaan chaque jour mu gën a yokk jël naa sama sujaade heure bu ma jógee dinaa jàpp ba set. jàkkaarloo poolaay bi julli ñaan yàlla na commande yi gën a yokk commande di gën a yokk rek. commande bi Touba. dañu commandé te waa woon ci fu nekk réseau yi dañ koy commandé ganaar di jeex tàkk mhm. mais xam nga ni yenn saa yàlla da lay boole nit mu jig la. nit ki ñëw tàkkale la nit ki patron gis nga patron yu bari daanu nan leen taa daaneel seen ay booy wala sa ay mbinna wala sa ay mbinnaar wala sa ay jànq ñoo leen jikk dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw indaale wërsëg sa kër gi. mais boo dof dof la ba dàq leen sa léppay dem. fekk yàqu nga. dëgg la. barki Seydina Mohamed yàlla nag moom ma tiim tiim. Mm-hmm. fekkee mus naa ko liggéey. wala mus ko def lu bon yàlla na ma yàlla alak mus ma ko def dara mais sama àq moo ko dal. Oh. parce que kooku ki nga xam ne mbokkam la moo ma doon liggéey mu tudd Pape Dieng. Mm-hmm. mooy di liggéey ak moom di liggéey ak mu jékki-jékki xuloo ak man foofu bëgg ma génne foofu. xuloo ma ak foofu song ma xeex ah gaañ ma. Oh. song ma xeex mu ñëw boole magam magam ma wax ma léegi dàq dàq naa la moo ko. ngi bu ma dàq. parce que lii lii lii si laa yónnee sama waa kër. boo ma dàqee duma am lu ma lu ma leen yónnee te ñoom dañoo ay néew doole. moo moo ko barki moom Serigne Touba la gëm. moo ko barki Serigne Touba parce que gis naa ne mu def na cadre bu ngand boo xam diggante fee ak fii. lu toll cadre boo xam ne moom cadre Serigne Touba. boo xam ne photo bu ngand boo xam ne leer na ma boobu boobu lu mu ko jëlee mën na 10 millions parce que dafa ngan am defar ko boobu rafet. parce que dafa yoon alal nag yoon alal yow teraanga. moo ko barki Serigne tuubaa dama bëgg nga bàyyi ma fi ma liggéey parce que sonn naa dimbali ma ngir yàlla barki Serigne Touba bi nga yaakaar. jour boobu laa xam ni Serigne tuubaa am na ñaar tur. mënoo hmm. barki Seexul Xadiim. du ma la fa bàyyi da ngay dem ma ak ngir yàlla sukk si suuf ngir yàlla jàppale ma mu ni barke seexul xadiim ba ma nekk xale de. boobu laa xam ne kon Sëriñ Tuuba am na ñaar tur. barke seexul xadiim doo fi liggéey da ngay dem ma dem bu ma demee ganaar yëpp di xëy di dee. yëpp di dee ba tey kooku tey ay jafe-jafe la nekkal. Oh, moo tax yenn saa nit dalay boole ay nit affaire sa affaire di dox nga jékki-jékki san ko si sa àll ba nga sa effet yàqu mais xamoo ko ba xam moo am wërsëg parce que man gëm naa ni man gënnaaw yàlla ak yéen man yoon naa wërsëg parce que ñàkkuma wërsëg moo taxam bi mu fa nekkee mm. kër gi da dox alal bu bëri la doon am ay kër kër la doon am mm-hmm. mais bu mu fa jógee da mel am na ñoo xam ne dañuy àndaal seen mm-hmm. nga am koo xam ne liggéeyoo mu jig la nga ànd nga nekk si jàmm lépp di dox bàyyi bu bu ko bàyyi mm-hmm. mais comme lu ma ko waxee yenn saay mission day dox. yàlla wax ma xam naa yàlla mission boobu dama wax moom mu jógal. parce que dàq boobu tey moo a ili ma dàqoon da ngaa ko di fayee ko 10 000. dëgg la dara jaru ko kon instant yii da lay yokkal mu nekk 15 000 te boobaa tamit day ma yokkal la a waxee. parce que a yokk euh, euh, euh, lii laa doon fayeeku mu dem yokkal ma si 2000 francs muy 10 000 francs mais tamit est-ce que jotul tamit Sénégal euh, yenn patron yi ak yi ñuy lekk mooy imagine dix mille nan lañ koy fay nit. loolu tamit man gis naa fi jànq yoo xamante ni 15000 euh, wala 20000 la ñu fay ko par weer te liggéey bu métti bi ñuy liggéey. mais yow mais boo amu foo jëm boo amu foo jëm amul liggéey ci 10000 boobu ngay ngay raay say bopp fan nga jëm ah, yow sa sa lépp doyul amoo dara. sa koobay yi chaque jour dañuy am dëgg sama kaw. non non. ku ma ci wax dama liggéey ñu ne ma liggéey fayul. duñ la fay. boo si ak dañ lay toroxal man lu ma gën a jaar après dañ lay ñàkkal fayda ah parce que tey boobu mu ngi doon defar benn mbaar maa ngi fàttaliku de mu ngi defar benn mbaar boo xam ne benn mbaar boo xam ne ay sac ay seng la. Hmm. mais dama gis euh, kooku kooku kooku kooku ki nga xam ne moo tax ni jóge fa. Hmm. dama gis mu jaar si seng yi jàll kenn wax ko dara man ma jo ma jàll rek man ma yow affaire comme euh, affaire yi nga def coin yi nga def pour lan nga fi jaar nangam nangam ma ah kii daal moo fi jaar moo tax ma jaar fi. dañ lay toroxal di la def ay yëf yoo xam ne kenn xamutuñu woon doon. man if man sama alal aw jëkk ma ko aw ma am ko de damaa sonn jóge foofu ñëw Thiès encore. nga nekk tumuraanke nga ñëw fekk sa yaay am benn néeg. ngay fanaan si benn néeg. ñoom di fanaan si ay xale jigéen ak yooyu nga xam ne ba mënoo fa fanaan ngay fanaan si waañ. Oh. ma ngay tawte foofu kaña di la màcc si ay ay ay baaraan. billaa wallaay mais comme lu ma la ko waxee mais nga am nga nga dem ba sa tan néegu parce que lu waral may defa am na ko sama benn mbokk boo xam ne moo ma tane woon si terrasse am laa doon fanaan mais mu jëkki-jëkki tooy boobu mu daloon Louga parce que damaa ñibbisi muy sëkk rek di feebar di wàccu mun ma wàcc lal bi ma wàcc wàcc mun ma génn néeg bi ma génn amu fa mu fanaan si fanaan si ay waañ si waañ ay sakket ay senk ba loolu moo tax tey bu ma demee ba am alal mun maa bon. man mun maa bon yenn sax nit damay jéem a def lu bon chaque jour may def lu baax ni may fay lu bon mais damay dem ba bëgg fayantu mais mun ma ko dama ko munul. parce que fi ma jaar ak fi ma jóge la. si ñàkk laa jóge si tumbaranke laa jóge si mettit laa jóge liggéey naa maçon amul lu ma liggéeyul. parce que xam-xam mu ngi si man di mais xëy na jotugul pour ma génne ko. moo tax képp koo xam ne ne am nga alal na nga sóoraa ñaa ñett ki nga tane. Mm-hmm. na ko dimbali na nga ko yërëm. Mm-hmm. ku la tooñ bu ko ëpp doole. Mm-hmm. bu ko jëm ëpp doole. yàlla boole ay nit yàlla boole ay nit wax dëgg bu leen xeeb. parce que xeebaate yéen sax nga xeeb sax koo xam ne parce que ma bari na ñoo xam ne ñoo xam ne dañuy gën jékki-jékki ba si soxna sax. sa soxna da nga lay jëkk nga amoon moom depuis fondation ba élevé. ba am lépp nga jëkk jékki sànni ko wàcc ko sa alal yépp seey. waaw am na fi. Mhm. moo tax nit ku nekk boo amee koo xam ne nit mun na mun nit sax mun na seetal boppam lu gën a yomb. man bu mu fekkee damay dem di la labat. sama alal di gën a yokk ma xam ne yow am nga wërsëg mais bu ma lay labat sama alal di gën a wàññeeku ma yàq ma xam ne foofu bu ma duggee noo lay continuer mmh. wala nga ànd na nit ki xale bu ndaw nga liggéey ak moom guddee bëcc mu nekk sa kër mmh. sa affaire di gën a baax jàppal mmh. mais boo ko sànnee rek xamal yóbbu nga sa wërsëg day yóbbu sa wërsëg dafa am nit ñoo xam ne day indaale est ce que xam nga yéen ñaar ni nga liggéeyee nii sax day fekk day fekk yàlla mooy boole seen wërsëg tey tey ku si am ku si war sa morom rek. Hmm. il faut sa ay problème day am. mais bu ku jàppee ko bu jàppee kii jàpp. Hmm. sa wërsëg day gën a yokk. moo tax nit ñi dañuy xam ni dafa am ñoo xam ne yàlla da leen boole ak ñoom bis boo leen bàyyee rek nga gis musiba. Hmm. parce que wërsëg yenn saa nit doom aadama ñu bëri danoo weex tàll. dañuy ànd yow di gën a yokk ngay gën a yokk bis boo leen bàyyee nga torox. nit ki mun na seetati boppam rek xool sa am na ñoo xam dañu am aawo. alal bi yëpp gàññi mhm. ñu takk keneen wàcc aaw bi lépp seey nit da lay jëkk mhm. ba sa doom bi nga judd bi ngay doom bi ngay bi ngay juur sax mhm. day day am ñoo xam ne mooy taaw bi deuxième bi troisième bi ba quatrième bi troisième bi yëpp mun na bañ a am wërsëg mais caat bi si boppam bu ñëwee rek wërsëg bi ñëw day indaal wërsëg il faut ñu xam ko xam-xam laay wax nii mais wax ma làmmatu dëgg ba si président Macky Sall moom laa la wax. mun na am na koo xam ne ni chaque jour moo ko jig bi bu ko waree wala mu wàcce ko dépp yàqu. dëgg la ñoom da ñoom sax ñoo la gën a am seetlu bu baax. bu ñu ñoom bu nu falee nit ki. Mhm. bu ñu falee nit ki seen affaire di baax am nu coow am nu problème. ah nit nit ka mu bu jëkk ko follee rek nga gis problème bi am dañ koy indiwaat doo gis ni indiwaat indiwaat bi nekkul loolu de indiwaat mu jig la dëgg la premier ministre ñu takkalaat ay ndombal tànk eh, eh, dañ leen sànni ba la parce que bu leen sànnee da gis ni am ay xat-xat ay jafe-jafe lépp du dox ñu mm-hmm. indiwaat la affaire yu baaxaat ne ah kon kii la nit ku nekk mën na seetal boppam dëgg la seet mooy seetlu rek seet mooy seetlu rek mm-hmm. boo gisee benn affaire lu la jaaxal arrière lal nga lan moo ko waral mm-hmm. moo tax nit ku nekk dafa am ku am wër sekkam dëgg ni ku nekk ku muy àndal parce que Sonko mii sax am na koo xam ne sax mun na am koo xam ne am na ku am wërsëgam bis bu ko bàyyee mbiram mun naa yàqu bis bu àndee moom mbiram mun naa baax mais Sonko mun na am koo xam ne sax moo ko jig te da koy seetlu du ko xam bis bu ànd moom miiram di gën a mais bis bu ko yàq nii rek yëpp mun naa yàqu mm-hmm. dëgg la moo tax wërsëg nit da koy am di mm-hmm. mais da ngay am koo xam ne da lay jig mm-hmm. sa wërsëg da nekk benn dëgg moom il faut nit ñi xam ko. Mm-hmm. parce que dama see dund te lu xam-xam bu wér laa lay wax. Mm-hmm. ku nekk xam na ni am na ñoo xam ne dañuy indaale wërsëg. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy nekk si biir kër bu ñu am na ñoo xam ne bu nekk si biir kër sax location sax laa wax. ñoo xam ne dañuy bokk location. am na ñoo xam ne seen affaire rek am na koo xam ne bu demee rek day mel ni kër gi day gental. day gental. sëñ Abdoulaye Faye tey euh, yaakaar naa euh, waxtaanee na loo xamante ni ay sujet la yoo xamante ni benn bu nekk rek euh, kenn ku nekk mën na cee jël leçon ndax. pàcc bu ci nekk rek ab jàngaleel boo xamante ni tey mënoon nañ di ci wax di ci wax ba fi yekki fan tëdu euh, jeex li ko waral mooy surtout fi mu mujjee mbokk yi kon euh, borom alal yi ni ñuy dimbali néeg doole yi. tey ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk alal nañuy gestu ginnaaw ñi ci seen ginnaaw te xam ne àdduna boo ci nekkee na lépp euh, rafet. gis nga social ni mu koy doxalee gis nga Sëñ fay ni muy dimbalee nit ñi gis nga ni muy jëflantee ak jaami yàlla yi boo xamul la nga naan kii day yàq lan moo tax bu nit ñëwee mu war a comp jox ko waaye du ko def day tibb lu bëri jox ko day wane ne fi mu jaar moo tax buy jox nit da koy bëgg a jox lu koy jariñ te ndimbal tamit dafa war a jariñ doomu aadama bi ay ca mbokk yi waxtaan am na njëriñ Sëñ Ablaye loo tàggatoo ak la ngay wax askan wi lay suivre ci MPROD TV tàggatoo rek képp koo xam ne maa ngi lay ñaanal waa gis naa ni gis naa ni ñi may ñaan yëpp ñu ngi am alal ñu ngi am teraan ñu ngi may si jox. alhamdulilah waa lu ko yeeg. Mm-hmm. foofu. Mm-hmm. bari ñoo xam ne man maa ngi def fa milliardaire parce que foofu laa yoru. Mm-hmm. waa jëllëru. waa ñoomre waa kay jëllëru si la waa ñoomre. ñoo ñëpp maa ngi def tay milliardaire. tay ba tay ba yeeg ba si waa Touba. ba si Saalum Saalum yi. parce que boo xoolee. gis nga am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi def ay immeuble Louga wala ñoom rek ñu ngi gannaaw yàlla ak sama loxo bi la ñuy jaar. parce que dama leen koy jox secret bi dama ko yor te bu yéenu naa ko. moodu moodu yi ak faat faatu yi. ak képp koo xam ne bëgg nga tekki rek bëgg jàppale sa waajur mu ngi fi. ko boobu nekk ko loo xam ne dama leen koy dama koy lii rek mais képp koo xam ne xaj nga si dinaa la ko jox. te koo xam ne ñaanal la damay ba mu gis mu doog a fay. boo demee ba nga gis nag nga doog maa fay man noonu laay def. mais wax dëgg bariwul ñoo xam ne war nan ma. Mm-hmm. ñëpp ñoo xam ne liggéey naa ak ñoom ba ñu gis nan jox nan ma fay nan ma. Mm-hmm. kon lu may ñaan mooy. tàggatoo bi li may tàggatoo. Mm-hmm. réew mi sunu réew la naan fi yàlla def jàmm. wasalaam. mbokki tey wi tey ala dawme nag ñu doon ko séq ak la marabu milliardaire Serigne Abdoulaye fay mu jël nag ay kàddu yoo xamante ni kàddu yu ndénkaane la di ko dénk ñi yàlla dénk alal ngir ñu xam nañuy jëflantee ak ñi leen yàlla euh, booleel tey mbokk yi émission bu triste la am na beneen instant muy wax su ma ko daggul woon man xam naa ne bëdi taana te rongoñ mi ngi doon waaj a génn loolu moo tax ma kase débat bi kase rythme bi ngir bëgguma euh, woon mu jooyee parce que li mu doon nettali da nga xam ne kii lu mu dund la waaye kii tey fi mu jaar bëggul kenn jaar fa fi mu jaar ci mettit bëggul ñi nga xamante ni ñi ngi dund ak seen patron yi di fa jaar mbokk yi émission bi kon tey émission bu bëri ay njariñ la émission la boo xamante ni tey waroon nañ di ko mën a jàngale ci école yi kenn ku nekk di ci mën a jàngee lan mooy dunduk doomu aadama mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD yi yàlla na ngeen bëri jàmm ci dara jey Muhammad Rasulullah